tam opposition bi ñu ngi waajalaat nee nañ eh, ab mars boo xam ne bëgg nañ koo def àjjuma ji mhm. am ñu jàpp ne waa ah, waaw jamono ji moom fi mu toll ndax jamonoy marsati la mhm. ak yu baree bari yi nga xamante ne am na ci looloo ban xalaat nga ci am oustaz waaw xalaat bi da mooy bu penc mi gisee ne ñii dañuy mars mm. te mars ba nekk luñ mën a encadré mm-hmm. encadré mars moo gën a yomb tere mars mm. encadré ñi mars mm. moo gën a yomb tere ko mm-hmm. waaye nag nun suñu gisin mën naa wootee gisuñu gaa ñi dëgg la ndax gaa yi mën nañoo gis ñoom loo xam ne ñun gisuñu ko hmm. mën nañoo xam loo xam ne ñun xamuñu ko hmm. waaye daal marche moom dañ ko bëgg def hmm. fu ngeen koy defee barab sàngam ban heure heure sàngam da ngeen di marche am da ngeen di da ngeen di shooting ñu ne dañuy dañuy marche wala dañuy shooting ñu ne kon baax na ñëw ni ñu ñëw ñu encadré leen ñu def ko mu jeex su booba buñ ko encadré ñu def ko mu jeex waaye léeg-léeg nun suñu yooyu dañ ci xam ko xam ne day ni day ni ci biir te bokkut. waaw nekk ci biir te bokkut. waaw mën naa jël moom suqub suuf. Mhm. xëpp ko nit. Mhm. ko nga xëpp ko ko. Mhm. coow la tàmbalee fa. yooyu da ciy am. waaw ndax ndax lu mel ne bi ñu wootee woon rassemblement. am na ci jàmm jeex ci jàmm mais dégg nañ fa ay kilifa yu wax ñu naan dañ ko doon dañ leen doon yuuxoo. dañ leen def looloo bu amee ci ab dox. mën naa indi léegi euh, ay jëf ndax loolu ay wax la moo tax ay yuuxu mooy wax ji waaye bu dee ay actes yuñ posé mën naa indi salfaañ loolu rek laa bëgg wax macha allah alhamdulilah loolu am na solo oustaz euh, période boobu ñu koy def sénégalais yaa ci waajtaayu aj màkk mhm. am na ñoo xamante ne feek alxames rek ñu tàmbulee dem euh, loolu itam nekkaat beneen actualité boo xamante ne suñ kanam la nekk mhm. am ñuy dem di bàyyi réew mi ginnaaw maa ngi wax ci fajar ni Eh, xew-xew yi xew bu la fekkee ci biir réew mi lay gën a oyof ci bu la fekkee bitim réew nga di ko dégg ndax sori dafa metti mhm. ba noppi li nga gis ci internet bi day mel ne àddunaa ngi faf tukki benn yoon loolu itam man njàngat nga ci def njàngat mooy xanaa ñaan suñu borom mu wis ci lii ndox mu sedd d'abord mhm. waaye accompagner ñii aj màkk mhm. nangu leen seeni ñaan foofu aj màkk benn ponk la bu am solo waaye ki koy def di bàyyi am am réewum ci ñu ngay taal barab sàngam mën naa am am xelam du daal na mu war a dalee te ni nga ko waxee léegi soo nekkee mun Muna mbaa nga nekk Arafa connecté gis liy xew fii mën nga caa dugg see commentaire ba la ngay def xajam wallaahi du dëgg wallaahi yooyu yëpp def def ci am mhm. waaye daal yàlla na jaar fa mu daan jaar mhm. mel na mu daan mel mhm. aji si bismillahi rahmaani rahim si alhamdulillahi rabbil alamin jàmm na yooyu amiin yaa te yàlla wis ndox mu sedd ci suñu penc mii amiin amiin yaa rabbal alamin du dëgg dëgg si xel ya xalaat yi élection yi du du du élection yi mujj. déedéet déedéet. ay élection ngi ñëw. ñii bëgg a bokk ak ñi bokk duñu ko fekk. l'an deux mille quatre cent. l'an deux mille quatre cent waaw. élection yooyee. ndeysaan ak ay bëri ñu ko wute. wallaay wallaay ndeysaan. cay sama borom. ak ay bëri ñu ko wute wallaay moo tax ku yëpp rafetal rek. te bu boobaa mën naa am ñooña di nettali li xewoon ci at mi. jeex na ñu war koo nettaliwaat war cee jàngaat war cee nose ay yëf. la ca rafet ñu ne diw li defoon na ca nangam. la cay sikk nag xam nga li mu def. dëgg la du dëgg la dëgg la te it Lamine Gueye nekkoon na fi. Senghor nekkoon na fi. Mm-hmm. diw nekkoon na fi. Mm-hmm. ah mm-hmm. Mamadou Dia nekkoon na fi. dañoo mujj rek di ko nettali. wallaay wallaay ndeysaan wallaay. du dëgg dëgg la. lañ doon nekk nettali lu ci nekk rek. buñ jaaree barab sàngam ñu naa loolu de rafet na. moo tax suñu mag ñooñu war a bàyyi xel liggéey bi ak ci meeg yooyu. incha allah jërëjëf jërëjëf am na solo Oustaz. Tabaski itam ñu ngi ci waajtaay.